Sud Matin. Babacar Samb Sud Matin, seconde édition. Bonjour et bienvenue. Tabaski 2021, le comité de pilotage transitoire euh, de 19h à la télévision nationale la lune afin de déterminer de la Tabaski et nous allons parler de l'approvisionnement du marché en bétail. de l'élevage des productions animales rassure en visite difficultés ne sont pas euh, signalées au niveau des marchés. Ils réagissent ici au micro de tout ici. Dans ces marchés, dans ces deux marchés, nous n'avons que la production nationale. Il n'y a pas de sujet qui viennent des autres pays. Je crois que tout ceci est à l'honneur des éleveurs sénégalais et c'est pour moi une occasion, en tout cas, de les encourager dans cette, dans cette direction, surtout si on sait que nous sommes côté de la ville sainte de Touba où le niveau de consommation est très important. Les prix également, on l'a vu à, à Ndindi, euh, tournent autour de 80 000 à 115, 130. Il y a effectivement des moutons également qui coûtent 500 000, 600 000. Ça, c'est, on, on le voit partout. Cela confirme encore la largesse de la fourchette des prix et ça l'indicateur sur lequel nous travaillons. Jamais il ne m'a été euh, signifié ici un problème d'insécurité. Oui, la question de l'eau a été évoquée à Ndindi. Il y a de l'eau, mais ce n'est pas suffisant. Ils nous ont demandé de les accompagner pour pouvoir en tout cas augmenter le diamètre des tuyaux qui sont là, Et nous leur avons dit le cadre d'un projet que nous avons, le PEDEPS, il est prévu la construction forage. Je pense qu'une fois que ce forage aura été construit, cette question-là, en tout cas, sera derrière nous. Oui, je dois dire à partir de cette terre sainte de Touba que est très correct. Aujourd'hui, à jour J-13, on a un niveau d'approvisionnement qui est presque de 80% de ce qui est attendu. Ali euh, Saleh Diop, euh, ministre de l'élevage et des productions animales, qui estime que des difficultés n'ont pas été signalées au niveau des euh, marchés. Le niveau d'approvisionnement en bétail est très correct. Colère des ambulants du marché de Mbour, Sitine. Des six marchands ambulants de Mbour pour protester contre le déguerpissement à l'approche de la fête de Tabaski. Ces vendeurs réunis au sein d'un collectif demandent une dérogation afin de leur permettre permettre d'écouler leurs marchandises à quelques encablures de la célébration de l'Aïd el-Kébir. Les marchands indexent le préfet chez le maire et invitent le président de la République à trouver solution à cette situation. Voici Abdou porte-parole de l'Union des petits commerçants de Mbour au micro de Moustapha Sall. L'Union des petits commerçants de Mbour, notre problème en est que, comme vous le savez et vous le constatez, à ce moment-ci Euh, il n'est pas le moment de, de, le marché. On a l'information que le, les chefs qui ont dirigé cette, euh, ville euh, veut le marché à ce moment-ci. Ce n'est normal parce que beaucoup d'entre de, beaucoup nous, nous sommes euh, des marchands ambulants, plus ou, ou bien des petits commerçants euh, qui gagnent leur gagne-pain ici. À ce moment-ci, beaucoup d'entre eux ont pris l'argent des banquiers et d'autres. Et ils ont dans ce marché-là. S'ils déguerpirent le marché, nous sommes tous perdus beaucoup d'argent. Et, et Nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des violeurs, nous ne sommes pas des agresseurs. Nous sommes là uniquement pour travailler. Et on n'attend rien, rien de qui que ce soit. Nous allons toujours sur le chemin, euh, sur le bon chemin, c'est de travailler, rien que de travailler. il faut qu'ils nous laissent euh, de, de le après le tabaski, s'ils veulent déguerpir le marché, on vous accompagne euh, pour qu'ils fassent leur travail sans problème. Mais à ce il n'est pas le moment euh, de déguerpir le marché. C'est ça le message euh, on lance un appel solennel euh, euh, son Excellence Maître M. Macky Sall et euh, le ministre de l'Intérieur. Aussi, le sous-préfet de Mbour, le maire et toutes les bonnes volontés qui peuvent apporter des solutions à cette, à cette affaire. Parce que ce n'est pas du tout normal que des citoyens qui veulent travailler, on l'empêche de travailler. Lancement à Thiès de la phase pilote du service de probation. Il s'agit de mettre en œuvre des peines alternatives à l'emprisonnement L'association Futur au présent et Tostan sensibilise les magistrats de Thiès à désengorger les prisons.

possibilité à l'incarcération pourrait y avoir. Pourquoi Parce que la prison de Thiès, comme beaucoup de prisons au Sénégal, est très peuplée. Il y a énormément de détenus. Il faut travailler à limiter le nombre de la population carcérale pour éviter les problèmes de conditions de détention. Et la deuxième chose, c'est qu'on sait qu'une personne qui n'est jamais allée en prison, si elle y rentre, elle peut y faire des mauvaises rencontres et devenir un magistrats sont appelés à veiller au respect de l'articulation avec l'arsenal judiciaire. Alors, il faut savoir qu'au Sénégal, tout existe au niveau des peines alternatives. Tout l'arsenal juridique est en place pour pouvoir fonctionner, mais en effet, il fonctionne peu. c'est plus un problème de moyens qu'un problème juridique. c'est qu'ils euh, n'ont personne pour suivre les détenus euh, qu'ils condamneraient à des suivis ou euh, à, des travaux d'intérêt généraux. C'est pour pourront euh, assurer ce suivi et le lien entre le juridique et la vie des personnes euh, en dehors de la MAC. Pour un meilleur de la dignité humaine, les charges du juge de l'application des peines devraient être allégées selon la directrice du futur au présent international. Le souci des juges d'application des peines au Sénégal, c'est qu'ils cumulent cette fonction avec d'autres fonctions. de euh, Et c'est une difficulté pour eux. Et également, la deuxième difficulté qu'ils évoquent et qui est véritable, c'est que condamne pas quelqu'un à aller en prison, ça ne veut pas dire qu'il est innocent, ça ne veut pas dire qu'on ne le condamne pas. On le condamne à se faire soigner, à euh, trouver un travail, à venir régulièrement se présenter pour des entretiens auprès des travailleurs sociaux. Et donc ça, c'est du personnel humain. Une expérience qui devrait porter ses fruits d'ici 9 mois à date de la fin du projet. Babacar Ndao, Sud FM. Sud FM. Parlons de la lutte contre la COVID-19 et la construction d'une usine de production de vaccins à Diamniadio. Un financement de 10 milliards de francs CFA déjà sécurisé par l'État de la mi-année 2022. C'est l'objectif fixé sur le laboratoire de l'Institut Pasteur qui va piloter ce projet. Amadou Moustapha Dia. L'Afrique importe actuellement 99% des vaccins alors qu'il est essentiel d'accroître la production locale de vaccins la COVID-19 dans un contexte de troisième la signature de l'accord entre la Team Europe, l'État du Sénégal pour euh, l'implantation d'une usine de fabrication de vaccins à Diamniadio. Alpha Sall de l'Institut Pasteur de préciser le type de ces vaccins à fabriquer. Nous avons fait le choix du vaccin, de certains vaccins qui se portent le mieux, qui sont les vaccins qu'on appelle des vecteurs viraux. Mais on sait aujourd'hui que les virus, les vaccins à ARN sont aussi efficaces. C'est pour ça qu'on ne sait pas fermer les opportunités. Donc on va pouvoir en vecteur viral et on pourra faire aussi de l'ARN messager. La production de vaccins est prévue d'ici le deuxième bimestre 2022 avec une capacité annuelle de 300 millions de doses. Déjà, pour la première phase, une somme de 10 milliards a été réunie par les différents bailleurs de fonds et autres partenaires de l'État du Sénégal dans ce projet, nous dit Thierry Breton, commissaire en charge du marché intérieur et dirigeant la task force de la Commission européenne sur le développement industriel

à terme à l'État du Sénégal de fabriquer non seulement des vaccins contre la COVID-19, mais aussi contre d'autres maladies. Le besoin de départ, c'était 10 millions de dollars, comme l'a dit Monsieur le Commissaire. Nous avons finalement levé millions de dollars de dollars venant de l'État du Sénégal. Il a ensuite engagé l'Institut Pasteur, représenté par son directeur Alpha Sall, à user du mode fast pour être au rendez-vous de la livraison des premières doses du vaccin Made in Sénégal. Amadou Moustapha Dian, puis en marge de la signature de cet accord entre le gouvernement du Sénégal et ses partenaires, le ministre de l'économie et du plan Amadou Hott s'est prononcé sur la rupture des stocks de vaccins que traverse le Sénégal. Le ministre a annoncé la réception de 300 000 doses prochainement et l'arrivée de 5,3 millions de doses de Johnson Johnson dans le cadre du partenariat AfricaVax. Le ministre Amadou Hott avec Amadou Moustapha Dia. C'est vrai qu'on est un peu short côté vaccin, mais il y a des doses qui seront là dans les quelques semaines 300 000 doses qui vont arriver prochainement. La France vient d'offrir 186 000 doses d'AstraZeneca également. Les États-Unis aussi viennent d'offrir à peu près 160 000, voilà, 160 000 euh, venant des États-Unis. Mais l'autre point également, c'est qu'au-delà de l'initiative COVAX, euh, nous avons aussi l'initiative AVAX de l'Union africaine. Dans le cadre de cette le Sénégal a déjà commandé 5,3 millions de doses Johnson Johnson.

demandons aux populations et à tout le monde de continuer à respecter les gestes barrières, de, de, de retourner à la normale de l'époque, c'est-à-dire au mois de mars, avril, quand les choses étaient dures, tout le monde était quand même sur, sur le, sur le qui-vive et les gens respectaient vraiment les gestes barrières, etc. Et nous demandons à ce que tout le monde redouble d'efforts pour que les gestes barrières soient respectés, mais surtout que les gens aillent se vacciner. vacciner. Aujourd'hui, on est à peu près 550 000 personnes à peu près vaccinées qui ont eu les deux doses, et nous avons à peu près 800 000, 900 000 qui ont au moins eu la première dose. Mais il faut aller beaucoup plus loin et nous demandons aux populations et aux médias surtout de nous aider pour que tout le monde vraiment respecte les gestes barrières et surtout, surtout, aille se vacciner dans les endroits les plus reculés du pays partout dans le pays, surtout aussi au niveau de, de l'agglomération de Dakar quand même, où on a beaucoup, beaucoup, de cas, et surtout durant les derniers jours. Autre point de l'actualité, c'est l'hivernage et les inondations. Si un dispositif important de pompage est mis en place dans les parcelles de Kermassar dans le cadre du projet 2, le service technique de la commune de Kermassar alerte sur la situation des parcelles assainies de Malika.

déverser des camions de gravats dans les mares d'eau qui se forment dans leur quartier. xeer yi ngeen romb nii man maa ko fay def dama ko fay def mu taw samedi lu ko wàcc sax lay wut nii. ndaraan boo laal rek mu ne la.

Kane, chef de service technique de la commune. Mais quand même, les parcelles assainies de Malika, dont, dont l'unité 12, l'unité 13, l'unité 14, et à Boun aussi et à Amdalaï, vraiment aussi, les gens souffrent. Donc, on demande là aussi des mesures d'accompagnement ou bien des mesures préventives, le temps au moins que le projet 2 euh, puisse passer là-bas ou bien le projet 3. Dans le lycée de Kermassar, inondable, les élèves affichent une crainte pour la tenue du bac en plein hivernage. À Camille Basse, en face étrangers à l'œuvre. Une course contre la montre pour le raccordement des canaux. En tournée dans la zone, le ministre Omar Gueye rassure sur le dispositif de pompage mis en place. Nous pouvons dire sans nous tromper que tous les points critiques sont à l'heure actuelle équipés et quasiment opérationnel. Nous pouvons dire donc que le dispositif de pompage est opérationnel. Il y a des électropompes de 1000 m3, des électropompes de 800 m3, des électropompes de 600 m3, avec des tuyaux anaconda, des anacondas de diamètre 300. Vous avez vu, c'est installé, c'est opérationnel. Banlieue dakaroise, El Hadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. El Hadj Moussa Thiam. D'un coût de 284 milliards de francs CFA, l'usine de Keur Momar 3 sera inaugurée ce samedi par le président de la République, Macky Sall. KMS 3 va permettre d'améliorer la qualité de service et l'alimentation en eau potable de près de 4 millions de Sénégalais. Lamine Guessamal. La troisième usine de traitement d'eau installée dans la commune de Keur Mamassar sera inaugurée ce samedi président de la République. D'un coût de 284 milliards de nos francs, l'usine a pour mission d'améliorer sécuriser l'alimentation en eau potable de près de de Sénégalais, dont 1 million gratuitement. Charles Fall, le directeur général de la SONES. L'objectif, améliorer et sécuriser l'alimentation en eau des populations des régions de Louga, de toutes potable du lac de guerre numéro 3, Kerngamarsar et les autres localités, mais aussi des populations de Géoul, de Kébémer, Kioawan, la Petite Côte, surtout de Dakar et ses agglomérations. Il y a 85 000 branchements de façon gratuite à l'eau par Gagata du Sénégal grâce à l'appui de ses partenaires, mais million de personnes qui bénéficieront d'un accès gratuit

de 3,5 milliards de francs CFA. Après deux ans de travaux, les premières gouttes d'eau de KMS3 ont commencé à couler des robinets du pays depuis le 28 avril 2021. Il faut toutefois noter que de nombreuses localités du Ndiambour traversées par les conduites de KMS3 continuent encore de consommer de l'eau saumâtre. Lamine Gueye, Saman Louga, Sud FM. Lamine Gueye Saman, euh, l'inauguration de l'ouvrage hydraulique euh, KMS 3 euh, annonce peut-être la fin des perturbations dans la distribution de l'eau, mais le vice-président de l'ASCOSEN a des doutes. Il s'interroge sur la fiabilité du circuit. Momad Sissé plaide pour une autorité de régulation pour le contrôle du secteur, au bénéfice des consommateurs, bien sûr. Momad Sissé, vice-président de l'ASCOSEN avec Issegna. Vous savez que quand on parle de KMS3, les consommateurs se disent enfin nous sommes soulagés parce que l'offre à laquelle on courait toujours est maintenant au rendez-vous. C'est ça que les consommateurs ont de KMS3, c'est-à-dire qu'il y aura plus de perturbations, mais si celle qui doit distribuer cette offre n'est pas au rendez-vous, les consommateurs vont déchanter. Pourquoi Parce que chose est d'avoir cette offre Mais une autre chose est de la distribuer jusqu'au robinet du consommateur. Et je sais que Sen'Eau doit faire des travaux. que la SONES surveille et que ces travaux soient terminés à temps pour que les consommateurs aient cette eau et qu'on ne puisse pas avoir un consommateur qui puisse battre le macadam parce que on n'a pas cette eau. Si on n'arrive pas à distribuer toute cette offre-là, KMS3 serait un échec on nous a dit que les tuyaux doivent être changés par moment, mais les réparations ou l'extension du réseau ne doit pas perdurer. Je crois que CNO doit remplir ses cahiers de, son cahier de charge pour qu'au moins le consommateur puisse avoir ça. C'est pourquoi nous disons toujours que ce secteur a besoin d'une autorité de régulation. S'il y avait cette autorité de régulation qui serait entre les opérateurs, c'est-à-dire Seno, entre aussi euh, le bras technique du ministre SONES, on saurait, s'il y a problème, l'imputabilité de la responsabilité. Si la responsabilité revient à Seno, mais il appartient à l'autorité de sanctionner Seno comme on le voit dans les secteurs comme l'électricité, comme aussi dans les secteurs téléphoniques. Donc, KMS3, le travail achevé à plus de 99%. Le président de la République, Macky Sall, va l'inaugurer ce samedi. Euh, L'usine va renforcer la distribution d'eau potable avec une capacité de 200 000 euh, mètres cubes par jour. 7h51 minutes L'artiste chanteur Pape Diouf signe un contrat qui devient euh, l'ambassadeur de OneXBet au Sénégal et en Gambie. La convention a été paraphée cette euh, hier dans l'après-midi entre le leader de la génération consciente OneXBet et Subatel Agency. Un choix judicieux car OneXBet euh, s'identifie aux valeurs incarnées par Pape Diouf, la directrice commerciale et marketing du Paris sportif en ligne. OneXBet revient ici euh, sur le choix de l'artiste chanteur Pape Diouf. Madame Samb, Elisabethine au micro d'Adam John. Ses chansons émouvantes, sa voix captivante et sa présence charismatique sur scène lui ont valu une série de succès, dont Bégué en ce qui a fait une véritable superstar en Afrique de l'Ouest. l'album Rakaju en 2014 et bien d'autres. Fort de cette cote de popularité, cette reconnaissance des instances internationales, et sénégalaise, fort également de cet engagement inconditionnel aux côtés de la jeunesse et des couches défavorisées, Wanixibet Sénégal s'identifie aux valeurs que vous incarnez, dont le respect, l'engagement, le travail, le sérieux, l'empathie, la générosité et un attachement sans faille aux valeurs citoyennes. Qui mieux que vous, Pabdou, un des rares artistes à faire l'unanimité au Sénégal et sur l'échiquier international, tant professionnellement humainement pour porter haut et l'étendard de notre société Wanixibel. Sans l'ombre d'un doute, vous êtes la pièce qui nous manquait pour rayonner et apporter notre pierre au développement de notre nation. Dit l'adage, pour respecter et réaliser de grandes choses, il faut s'accompagner des grands hommes. Plus qu'un honneur, c'est un privilège pour moi devant cette auguste assemblée de procéder à l'authentification de cette collaboration qui, de tout que nous espérons, augure d'un avenir radieux pour Wanixibet au Sénégal. Aujourd'hui, je peux témoigner sur le nombre de conventions qu'on a eu à faire au Je pense que en matière de popularité, en matière de leadership, vous avez su faire la différence. À l'instant, euh, Madame Sam Elisabeth Euh, donc euh, la directrice commerciale et marketing du Paris sportif en ligne OneXBet, euh, qui estime que vu euh, les nombreux trophées euh, dimanche au niveau international, les actions sociales donc de, de l'actrice chanteur Pape Diouf, c'est un choix judicieux car OneXBet s'identifie à ses valeurs. Et puis, parlons sport, Ligue sénégalaise, 24e journée, le leader Tengue FC reçoit Cet après-midi, Stade de Mbourg, Diambar, cinquième du classement, va accueillir AS Pikine, troisième désormais. Et puis, euh, 28 AIC répartis dans cette poule vont disputer chez la 34e édition des phases nationales sportives et culturelles de l'ONCAV à Thiès. Bourg et Tivavone du 21 août au 4 septembre de l'année Un CRD a réuni tous les acteurs à Thiès et l'accent a été mis euh, sur euh, la pandémie de Covid-19 et les mesures barrières à respecter. Ibrahim Ndaou, directeur de cabinet du ministre des Sports, au micro de Mundiaï. Nous avons d'abord observé la disponibilité des autorités administratives et locales, un excellent accueil, une très bonne écoute, des phases nationales, sportives et culturelles navétanes qui vont venir en août et septembre sur une dizaine de jours et je suis sûr que toutes les dispositions seront prises pour que ces phases nationales puissent connaître le succès escompté. Quelles recommandations avec cette pandémie qui prend du terrain Eh bien, la pandémie est en train de terrain, mais je suis sûr que en temps opportun, les dispositions seront prises pour le respect strict des mesures barrières, puisque autant nous devons faire du sport, autant nous devons organiser ces phases la vie des populations. Par conséquent, le respect des mesures de barrière sera de vigueur si, entre-temps, la une tendance baissière. Et puis euh, parlons basketball. Coupe de basket, le Sénégal éliminé en quart de finale par les États-Unis d'Amérique le score de 88 à 58 points. Le Sénégal occupe la cinquième place du tournoi. Voici la réaction de l'entraîneur nationale U19 de son équipe. Parfait adjuvant au micro d'Odile Tout d'abord, je rends grâce à Dieu. Je félicite l'équipe adverse, euh, l'équipe américaine qui a fait un très bon match. Je félicite quand même mes joueurs qui ont fait un bon match dans l'ensemble. là où ça n'a pas marché, vous savez, qui, c'est un match de basket. Si tu donnes tes possessions à l'adversaire, on se de faire 28 pertes de balles. Ça ne pardonne pas. On n'a jamais fait ce nombre de pertes de balles durant tout le tournoi. C'était pas l'équipe Moi, je pense qu'on a perdu que deux pertes de balles sur défense agressive quand ils avaient fait leur pressing. on a ajusté, on a ajusté. Maintenant, euh, de balles, qui vous, où l'adversaire euh, met 42 points, <laughs> vous avez vu la différence. Ils viennent sur seconde chance, ils prennent 12 points. Cette fois-ci, on a plus ou moins bien notre raquette parce qu'on n'a pas perdu trop de rebonds. C'est ça, c'est ça le niveau. Vous faites des erreurs, ça se paye cash. Ça se paye cash. Là où on a eu des difficultés, c'est surtout par rapport aux meneurs quand même. Les meneurs n'ont pas été, n'ont pas été bons aujourd'hui. D'habitude, ils étaient bons, ils organisaient, mais aujourd'hui, ils n'étaient pas bons. Ils ont fait trop de pertes bas, de mauvais choix. Ils étaient à poser, en, à poser, à poser le jeu. C'est à ce niveau-là où on a pêché quand même. Quel, enfin, le bilan, le bilan, moi je pense qu'il nous reste deux matchs quand même. Il faut, il faut continuer, il faut aller jusqu'au bout. Après, on aura le temps à tête reposée avec les assistants, avec le, le DTN, tout ça, le DT technique. Après, on va faire une, un bilan quand même. Mais quand même, tout, tout on se concentre par rapport à, aux deux matchs qui nous restent. C'est la fin de cette édition d'information. À partir de 8h, vous aurez Adam John pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien. Canal Plus mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm. Sud FM. il euh, ñu doore ñaareelu pàcc Sud Matin ak tabaski 2021 euh, comité pilotage transitoire bi seytu wàllu nag weer wi. tey jii ñu fas yéene nag daje ci ngoon bu 19 heures jotee foofu ca RTS ngir daal di nag xool Euh, tolluwaayu weer woowu bu ko defee bés bi exact ñu daal di koy joxe euh, jëm nag ci euh, feetuk tabaski bi ñu daal di ci nag des ndax gis nañ ne wàllu marché bi ci jur gi daanaka amee na ay xar ministre bi ñu jënk wàllu càmm gi ak production animale di dalal xel yi gannaaw nemmeeku bu mu daal nag amal ci foraaye ca Touba moom Ali Sale Eh, Diop moom daal di gis ne jafe-jafe daal daanaka amul lañ ca daal di signaler foofu ca niveau marché ba ñu déglu ko moom jëwriñ bi ñu dénk wàllu élevage Ali Salé Diop ak euh, tuuti sëy ah, li may gën a sant yàlla mooy euh, kaaraange gi ci ñaari marché yu yëpp ñi nga xam ne ñoo fa nekk di liggéey nee nañu kaaraange gi mat na sëkk ñaareel bi ñaari daral yi ni leen organiser ci biir dafay di daral yoo xam ne dañ ko tracé tracé bu jekk boo yoree oto sax mën ngaa dawal ci biir lu am solo ñaari fora yi de jur giñ fii fekk lépp fii la juddoo lépp fi lañ ko sàmmee ay sénégalais donc kese rekk ñoo ci liggéey loolu day wane na ah, ah eh, dëkk bu tedd bii di Touba nga xam ne li ñuy am li ñuy soxla ci ndawal daanaka li fi dem lépp li ci ëpp doomi réew mi ñoo cee liggéey loolu am na solo lool pour ñu mën ko euh, souligner fii beneen bi ci des mooy euh, approvisionnement bi maanaam xar yi am na fi kaar macha allah waaye wax nañ ma ne dana gën a yokk ndax jur gaa ngi ci anaar si fii ci gannaaw dëkk bi di xaar bés euh, semaine bi ñu weekend bi ak semaine bi ñu dugg parce que ci aada noonu lay demee semaine bu mujj bi ci la li ëpp di ñëw bu ko defee nag euh, li ëpp ci jur gi mën fee taxaw mais nag prix yi ci boppam également prix yu jaadu lañ fi gis ndax bu fekkee da ngay am ay prix quatre vingt am quatre vingt cinq quatre vingt dix quatre cent cent dix cent quinze cent trente loolu kër yu jaadu na ci xar yi ñu gis fii. Euh, ñu daal di nag euh, wax ba tey ci wàllu tabaski bi bi yoon nag meeru ambulant ya ca marché Mbour toogaanu ñaxtu lañu ñu daal di nag euh, amee ngir daal di ñaalu déguerpissement bi ñuy def jëme ci ñoom ci nag jege feetu tabaski bi ñoom jaaykat yi daje ci ab collectif ne ñu nañ leen may ab fekk feet gi daal di nag weesu ndax dina leen rek dina leen may ñu daal di nag jaay li nga xam ne moom la ñu amee ci wàllu nag marchandise fii Euh, feetuk tabaski bi marchand yooyu di ci joxat bi baaraam préfet bi ak maire bu mbuur ñu ciy interpellé njiitu réew mi ñu daal di ci yàbbi Mohamed Faye bokk ci union petit commerçant yu Mbour ñu déglu ko ak Moustapha Sall. ñun ñu dem ci préfet ne ñun bañun dara ñu defaru lu luñ bëgg mooy. nañ ñëw nga organiser ñu ñu defaraat tali bi nit ñi nga xam ne dañ nekk tali ñu utalee fu ñu leen dugal pour jàmmanam maanaam ba julli passé léegi moom préfet dañoo xëy woo ko téléphone ne d'accord nañ ci li ñu bëgg mooy nga encadré ñu ak commissaire mu ànd ak ay semi ñu ànd ñun defar match ba julli gi passé bu dee préfet ak ay gaayam ak maire dañoo bëgg lu ak commerçant yu mag yi dañoo bëgg lu jub bu soobee yàlla le 25 joxe nañ rendez-vous préfet ak maire euh, ak président marché bi le 25 woo nañ leen pour ñu ñëw jubanti mbedd yi ñu woo kadas oo urbanisme oo képp koo xam ne autorité ci dëkk ñu ñëw le 25 ñu taxaw marché jubanti ko moom préfet ne ma demal moo yore euh, opération bi moo maire mu ne ma dafa am moom yor opération bi léegi nag moo commissaire commissaire ne moom ndigal rek lay xaar te ndigal ni ko joxoon dem ci ko jox ba tey guddi la ñuy ñëw te guddi googu heure crime la heure crime la léegi nag man a bureau bi ma ñëw wax bureau bi na leen diggante minuit jëm zéro heure jëm deux heures trois heures xanaa bandi sax jóguñu heure boobu léegi waaw zéro heure xanaa bandi yi laa la wax heure ko léegi ñu doon kilifa di yebale guddi pour ñu ñëw yàq dépasse kon ñu yàq lañ bëgg a def waaye defar ci te ñun li ñu leen oo may ñëw leen ñu defar ba julli passé su ngeen war a yàq dinañ fekk ñu jóg ñu engagé wu fi yàq ñu taxaw defar ko tey li ñu bëgg mooy président Macky Sall lu ñuy waxat ñun waxatuñu préfet ndax préfet nag nangu jël engagement am ba kon kay préfet la préfet mooy coow li préfet la préfet la pere ba nag yaa ngi yaa ngi bëgg a lokk xel moo xam ne yaa ngi ko yóbbu Dakar soo ko yóbboo wallaay Macky Sall yow su dee préfet bii nga fal bu mu taxawal Dakar préfet bii bu nekk moom la Macky Sall yaakaar mu Dakar lii mu lokk nar ko yóbbaale lu mu sugul lu mu sumul dina échec léegi nag lu ñu ñaan Macky Sall Macky Sall nag tey yow lañu yaakaar yow yaak Moustapha Niass président assemblée yéen lañu bii du dégg nañu bàyyi ba julli gi passé le 25 ñu daal di dem cees foofu lancement euh, phase pilote bu njëkk ci li aju nag ci nañuy daal di taxaw ñi caabi di féete gannaaw mu nekk ab euh, doxalin bi nga xam ne dañ ko bëgg a wuutale euh, ci jël nit ki rek daal di tëj bu fekkee teg nañ ko daan association futur au présent ñoom lëkkaloo ak ONG Tostan ñoom ñi daal di def sensibilisation jëme ci magistrat ya fare ca bu ko defee kaso fees yi ñu daal koy nag wàññi ay ak acteurs yu bëri bokkoon nag ci boobule ndaje ci ajuma ji foofu ca cour d'appel bu Thiès Babacar Ndaw fexe tey jii ba gën a féexal kaso yi nekk ci Sénégal futur au présent kaso bu Thiès sax la ñu tànn ngir tey jii li ñu tuddee service de probation ñu tàmbali ko madame seen Kine Gueye bokk ci kuréel googu. service de probation nag du lenn lu dul ñi nga xam ni dañu jote ak yoon bu fekkee li ñu def dafa ndaw aajewul dem kaso te boobu mooy xëy na euh, erreur bi leen njëkk magistrat juge yor yor seen dossier pour di tosaan ñoom jàpp nañ ne tey jii ñi ngi ciy bokk liggéey ay magistrat lañu waaye nag dañ a méngaleeg li ne moom la yoon santaane madame Sène. te depuis 2000 tamit am na réforme yoo xam ne dafa instituer mesure alternative à l'incarcération am ay délits yoo xam ne tamit dañ koo sible mais délit bi nga xam ne tamit code pénal xëy na prévoiru ko ci te moo ëpp ci ñiy dem kaso mooy usage de chanvre indien ndax boobu boo ko defee rek fii juge dañuy am tendance mandat de dépôt systématique loolu nag ñu nii nañu xool ñi nga xam ni ñoo ŋànk xëy na fii tribunaux yi ñuy waxtaan souvent di weccanto ay xalaat pour xool ñooñu bu fekkee bii mooy seen première fois nan la ñuy def ba nga xam ni duñ leen yóbbu prison mais dinañ leen mën a dénk comité de suivi boo xam ne ay travailleurs sociaux lañ ñuy dem di xool place bi ñu leen teg di ko saytu ñu xam ni tamit prison épargnel nañ leen ko mais loolu tamit beneen mesure la boo xam ni genre punition la fexe tey jii ba gën a jox doomu aadama gëdd jëm dafa war a jaar ñu dooleel ki ñu tuddee juge d'application des peines. CAP bi moom jumtukaayam des na mais comme ni mu ko waxtaan euh, ni mu ko fàttalee ci biir waxtaan bi mooy du ay moyens financier moo ko manqué mais plutôt ay moyens humains moo ko manqué ay ressources personnelles boo xam ni dafa xarañ ñu tàggat ko ci liggéey bi comme ñu ñun luy suñu liggéey muy ay travailleurs sociaux ay éducateurs spécialisés lañ yaakaar na ni projet bu day nii FAP ak Tostan ëmb ko bu ñu boolee suñu doole ñëw ci wetam jàppale ko dinañ mën a Euh, àggale xeex bi nga xam ne ñu ngi ko sumb. bu léegi euh, juróom-ñeenti weer jàpp na ne expérience bi ñu war a tàmbali si kaso bu cees war na am ay jeexital yu mucc ayib ci dundin doomu aadama yi terewul ba léegi ñi nga xamante ne moom mooy li wàllu waxtaan bi ak askan wi lu si am solo la Babacar Ndaw Thiès Sud FM Babacar tabax ab usine buy daal di nag euh, wutay vaccin la ñuy ñàkkoo ngir xeex Covid 19 bi di feebaru mbas mi ca Diamniadio euh, financement mu fukki milliards moo ñu cay xaar état bu Sénégal daal di koy sécuriser ba noppi lëkkaloo ci kii partenaire am ñetti téeméeri millions ci ay doses la ñu ne at bu jot dina daal di nag génne ca barab boobu fii ak 2022 nag la ñu jàpp ne dina daal di nag door mooy objectif bi ñu fixé laboratoire institut euh, Pasteur mi war rek piloté bi projet Amadou Moustapha Dia. Institut à partir de année prochaine dina commencer produire ay vaccin ci Sénégal. réewu Afrique yi lee daanaka téeméer boo jël juróom fukk ak juróom dañuy jéggaani bitim réew ñàkk yi lee ngir xeex. feebar bi la di Covid 19 te fu mu nekk nii soxla nañu gaaw gaaw ay ñàkk ngir mën a fekk seen askan yi nga xam ne feebar bi la mu ngi leen di lor looloo tax ni ki tey Sénégal daal di siifee ci ndimbalu Team Europe ak yeneen i xeetu bailleur yoo xam ne jàppale na ko benn accord ngir samp fii ki jam ñaajo benn usine boo xam ne mooy defar xeetu ñàkk yooyu la fii ci réew Sénégal usine boobule war a defar tollu ci ñetti téeméeri million dose at mu yàlla sàkk jàpp nañ ne nag njorteelu atum 2022 la liggéey boobule nar a tàmbali bu ñu sukkandikoo ci Alpha bi nga xam ne moo jiite laboratoire bi di institut Pasteur muy xam ne ne ñàkk yooyu lee. nous avons fait le choix du vaccin de. xeetu vaccin yi ñuy defar taamu nañ ci vaccin à vecteur viraux waaye it euh, tey euh, gëstu xam na ne euh, mën nañu boole ñaari xeetu vaccin yëpp moo tax ñun jëmuñu tëju dinañ defar ay vaccin vecteur viraux waaye dinañ defar yoo xam ne it ARN messager lay doon. et on pourra de l'ARN messager. koppar gi ñu dugalagum ci bile projet. daanaka toll na ci fukki milliards bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moo di Thierry Breton doon commissaire chargé des marchés bi nga xam ne moo jiite délégation Union européenne bile. Dakar avec euh, son. Euh, Dakar ak Institut Pasteur dañoo ñëw rek nekk ay candidat yu am solo jëm ci wàllu fu ñuy samp usine production vaccin fii ci Afrique ndax xam nañu Institut Pasteur moom diiru juróom-ñetti fukki at ñu ngi defar ay ñàkk te kat li ñu ut moom mooy ñu gaawal mbir yi looloo tax daal di jublu ci Ndakaaru. ci kàddoom moom Amadou Hott di xam ne ne mi ngi rafetlu jàppale bi nga xam ne jàppale nañ ko réew Sénégal ngir mu samp usine bu mucc ayib. fii ki jam ñaajoo ngir defar yooyu les vaccins. ñu mobiliser dix milliards de francs CFA boo xam ne ñu sécuriser ko. année prochaine au milieu de l' année au plus tard avant mois de juin dina fekk Sénégal war a mën a commencer produire vaccin fii ci Sénégal pour waa Sénégal wante di ko exporter. usine bi nag capacité ñetti téeméeri million ci ay dose pour Sénégal mais aussi pour l' Afrique de l'Ouest ci noonu it muy sàkku ci institut Pasteur ñu baral liggéey bi ngir mën a defar ci àpp yi ñu ko jàpp. ñàkk bi njëkk ci xeex mbas mi la di coronavirus fii ci réew Sénégal Moustapha Dieng ci loolu sax a jëwriñ ji daal na rek addu ci nag rupture bi am ci euh, vaccin yi ñu dajale woon fii ci mim réew mu jàpp ne moom Amadou dina ñu dalal ñetti ñetti téeméeri junni euh, ci ay dose bu yàggul euh, dara rax ci dolli itam doo toll ci juróomi millions ak lu tegal ci ay dose Johnson and Johnson ne ñu ngi koy xaarandi ci partenariat li ñu am te dëkk réewu l'Afrique yi dañ ci teelu kàddu Amadou Hott ak Amadou Moustapha Dieng vrai que euh, fan yi ñu weesu gis nañ ay cas de Covid Covid euh, Covid 19 mu yokk très rapidement moo tax population yi ñu ngi leen di ñaan gouvernement baa ngi leen di ñaan na ñëpp respecter geste barrière mais surtout na ñëpp dem vacciné wu na ñëpp dem ñaxu ñaxu yi amul benn problème ñaxu boo mën a jël muy AstraZeneca muy Johnson muy ak bu mënta nekk. wala sino femme ak bu mënta nekk amul benn conséquence négative ay wax kese la na ñëpp dem ñàkku ñun ñu fi toog ñëpp danoon dem ñàkku aussi donc na ñëpp dem ñàkku ji loolu mooy premier objectif vaccin yi c'est vrai que temps yi gis nañ tuuti tension rek mais loolu day jeex presque fan yii di ñëw ndaxte dina recevoir 300000 doses mooy ñetti téeméeri junni doses dina war a recevoir fan yi France jox nañu euh, téeméeri junni ak juróom-benn fukk ak ñeenti junni dose ngeen ko jot tam fan yi États-Unis tam presque lu tollook loolu aussi Sénégal nag def na commande ferme juróomi million ak ñetti téeméeri junni dose yoo xam ne dinañ leen commencé jot à partir de mois d'août ñu commencé ñaari téeméeri junni dose fii nag ba année prochaine chaque mois dinañ jot ay dose mooy bu Johnson and Johnson mooy bi nga xam ne benn yoon kese lan lay benn yoon benn yoon kese lan lay ñàkk benn yoon la lay ñàkk après euh, lépp sotti donc ñu ngi leen di ñaan na ñëpp respecté geste barrière yi ñëpp a dem ñàkku ji ndax suñu mun a aar suñu réew aar suñu économie aar suñu ay doom aar sunu ay mag aar sunu ay ndaw même xale yi nañ dem ñàkku ji parce que ñàkku yi allah du am benn problème et aussi COVAX mu ngi si jàppale initiative AVAX aussi mu ngi si jàppale Euh, ñu daal di nag wax ci service technique yu commune bu Kër Massar ñi daal di nag artu foofa ca Parcelles Assainies ak Malika euh, nga xam ne nag bu nawet bi di jot ak taw yi daanaka ci njàqare la ñuy nekk jamono jile tiitaange la euh, ñuy daal di nag am ci bac bi ñuy daal di nag def ca lycée bu Kër Massar ci école primaire yi nekk ci unité 23 autorités yi donte ñu ngay dalal xel yi waaye ne ñu faaw ñu daal di jël matuwaay wàllu pompage. bâche yeneen lu ko may bu taw yi waddee rek mën na gàllankoor li aju ci wàllu l'examen yi banlieue El Hadj Moussa Thiam kii borom kër la boo xam ni yàgg naa dund ak jafe-jafe ak lu toll ni fukki at ak lu ko teg foofee ci unité 27 te Parcelles Assainies ci kanamu ministre bi mu ngi waxi ay jafe-jafeem. am naa ko 11 ans sonnoon nañ lool. 5 na parce que boobu ndox amul. waaye yeneen mu metti lool. moomee sax daanaka ngir xeex li jëm ci wàllu nag ndox bu bëri ci kanamu këram jot naa am ay camion graawaay la ca toftalu mooy jafe-jafe ci moom. moom xeer yi ngeen romb nii man maa ko fi def dama ko fay def vendredi mu taw samedi lu ko wàcc sax lay wut nii ndaraan boo laal rek mu ne la da ngay ca pegg walla ca unité 23 école bi fa ne nag daanaka day inondé at wu ne école bi di ci sàkku nag ñu jël ci ay pexe nu mu gën a gaawee naka jekk dafa doon fees ndox parce que ndox bi da doon séparer école bi en deux parties ba ma ñëw def alerte dem ci monsieur le maire mu ñëw dimbali ñu la ñëw tabax fi mur de clôture pour au moins arrêter ndox mi bi doon ñëw dugg ci biir école bi Euh, aboutir na parce que dinañ ci am yaakaar mais bu fekkee tamit euh, visite lañuy def après continuer travaux du dukki donc euh, chaque jour situation bi noonu lay continuer. inondation nekkul ci bërëb boobee rek waaye nak ci yeneen gox ni ki mel ni Parcelles Assainies yu Malika yi tamit ñoomee ay jafe-jafe rek la ñuy jànkoonteel ci wàllu inondation loolee ki ko xamle di chef de service technique bu commune bu Kër Massar di Amath Kane. mais di wax ne nañu sóoraale aussi les Parcelles Assainies yi nga xam ne tamit moom moo nekk à Malika mooy unité 14 unité 13 ak ak euh, quartier Tawféex quartier Bàcci Diop ak quartier Amdalaay yooyu tamit dafay dafay am ndox vraiment situation bu métti la surtout euh, la population boobu di vivre dañu sóoraale foofu ay électropompe yoo xam ne dañ fa nekk en permanence ca biir Kër Massar ci quartier ay Namadi lycée bi fa ne tamit ndongo daara yu fay jàngee xaw nañu am tiitaange balaa nag seen baccalauréat taw mi bari ca Kamil Baas jàpp fi nga xam ni moo di forêt classée de Mbao ba fii di exutoire bi nag engins ñu ngi ci liggéey bu métti rek ngir amal li nga xam ni moo di raccordement bi ministre Omar Gueye bi yor wàllu woowee nag di dalal xel yi ci li jëm ci wàllu nag li jëm ci wàllu dal liggéey bi fu mu toll. matériel bi ñu def à leur disposition électropompe yeeg motopompe yi installé nañ ko. am na opérationnalité mën nañ ko wax léegi. tuyau anaconda yu mag yu diamètre 300. yooyu tamit ñoom ñu ngi ko déployé. lu war a mat presque ñaar téeméeri sapeur pompier ñu ngi Kër Massar fi mu ne nii. El Hadj Moussa Thiam moo doon jokkoo ak yéen fii ci banlieue dakaroise pour rajo Sud FM. Euh, wax nag euh, ci KMS euh, ñaari téeméer ak fukk ñeenti milliards ci suñu koppar usine Kër Momar Sarr euh, trois googu xam ne nag njiitu réew mi war na ko nag inauguré ci samedi gi gannaaw ba ñu ne lu war a toll ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yoo jël ci téeméer daanaka ci liggéey ba euh, noppi na te dina mën a tax qualité ndox mu mucc ayib lu war a toll ci ñeenti million ci sénégalais daal di koy am Louga Lamine Gueye Samane KMS 3 ñetteelu usine bi joxe ndox si biir réew mi nekk si kër Momar Sarr président de la république dina ko inauguré naka si samedi ji mu jar lu toll si ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñeenti milliards suñu xaalis usine bi li ko tax a jóg rek moom mooy yokkum ndox yenn dëkk yi waaye itam fexe ba dootul ñàkkati ñu jagleel ko lu toll si ñeenti millions sénégalais benn million bi sax ñoom daañu leen ko jox te duñu fay dara directeur général bu SONES Charles Fall. 284 milliards si suñu xaalis xaalis bu bari la amaay solom bi tamit natt nañ ko si li nga xam ni moom la projet bi war a indil askan wi ci wàllum ndox séentu nañ si li toll si ñaari junni si million gu liitaru ndox amaayu solo bi toll na si rëyaayu projet bi ndox moomu bu ko usine bi jëlee si dex gi togg ko foog mu transporter ko moo waral ñaari téeméer kilomètre réseau tuyau yoo xam ni seen rëyaay buleet ñu koy jënd gi si dugal ndox fii Sénégal mën nañu sax wax si Afrique juróom-ñetti milliards yi nga xam ne nguur gi génnee na ko ngir ñi nga xam ne projet bi am na lu mu leen yàqal seetlu ñu luga moom moo ci ëppale Charles Fall directeur général de la SONES. am na ñoo xam ni fay nañu leen seen dàmpaay ba pare fii si Louga rek fay nañ fi lu ndol si ñetti milliards ak genn wàll si dàmpaay ñaari junni nit nga projet bi laal si Sénégal yëpp wante neuf cent personnes yi fii la si Louga huit milliards la si gouvernement bi dugal ñetti milliards ak wàll yi mu ngi fii si Louga fay nañu ñëpp na si ñaari at toq ndox yi jëkk yi jóge si KMS 3 tàmbali na génn si robinet yi senegal yi ñaar fukki fan ak juróom-ñett si weeru avril 2021 lii ñuul si soow mi kay bare na ay gox ay ay goxaat yu nekk si biir njàmbur conduite bi jaar fa te ba ñoom ba tey ñu ngi wéy di naan ndox mi nga xam ni dafa wex xorom ki leen doon jottali xibaar yi fii si Louga lamin Guèye Saman Sud FM euh, Lamine loolu waral sax waa Ascosen Euh, di àddu ndax rek perturbation yi jëm ci ndox mi dina daal di nag jaare fi jeex ñoom nag seen xel daal ci rek tey ñoom ñi àddu jëme ci euh, mucc ayib gi ci euh, boobule tuyo Momat Cissé ci kàddoom daal di gis ne fa ñuy def contrôle yu bari te jamono ju nekk ñu koy def bu ko defee secteuru ndox mi ñu mën soppi jafe-jafe yi ci am waaye itam consommateurs yi mën ko daal di jëriñoo Momat Cissé mooy vice président bu seen ñu déglu ko Kajaay Seña KMS 3 biñ koy defar ñun consommateurs yi def nañ su suñ bopp ne li ñu manqué woon ci ndox ñu war ñu ko jox matal sones matal na ko donc buñ ko defee suñ bopp ëllëg ci sibir bu fekkee ne ubbi nga sa robinet te jotoo ko xoolal distribution parce que sones dafay joxe offre bi ne lii laay indi beneen problème bi mooy ñu distribuer ko ba mu yegg ci consommateur bu amee fu mu sooxe nag war nañ mun a seet kat moo indi sooxe bi ñu dóor ko ay daan ndaxte consommateur bi dafa am contrat boo xam ne day wara utilise ndox di fay ndox donc bu fekkee ne ndox mi doy na ca fa muy jóge ko boobu muy yegg si Ndakaaru ñu war koo distribuer ñu gis da maam ay consommateurs yoo xam ne dañuy euh, yenu waat seen soo di ko di di ñaxtu loolu kon échec am na quelque part c'est pourquoi ñun ASCOSEN dañ doon wax ne dañu war a def autorité de régulation boo xam ne day nekk ci kaw team SONES tiim seen Sen'Eau même team les opérateurs du monde rural ndax secteur bi moo ko laaj te consommateur bi dañ ko war a protéger te bu problème amee war nañ ko mun a jooytu ci autorité boobu comme ni mu amee ci électricité bi comme ni mu amee dégg nga maam ci secteur téléphonique léegi daal ku nekk doit jouer son rôle bu ko defee jàmm na ñooy ñu daal di wax ci artiste chanteur bi di Pape Diouf moom mi signé contrat nekk ambassadeur kon 1xBet fii ci bu Sénégal ak ci Gambie convention boobu ni ki démb lañ ko daal di nag euh, xaatim ci ngoon leader bu génération conscient ak euh, xBet lëkkaloo ceeg euh, Subatel agence yi ñoom ñoo daal di nag amee contrat googu moom Pape Diouf diggée ne nag contrat boobu dina ko daal di nag wéyal ca mu na mu gën a rafete waaye itam fexe ba paris sportif en ligne boobu gën a fës si àdduna wërngal këpp ñu teelu kàddu yi Pape Diouf euh, ci micro Sud FM. 1xBet parce que olof nee na dugg dugg xel la yomb yomb xel la waaye nag meles say waaja te boo nee meles di nga noppal sa bopp waaye di nga noppal ki lay dàq kon dama bëgg 1xBet ak Pape Diouf dañu raw sax meles ndax métier boo gis da ngay ñaan yàlla mu bënn te bu bënnee rek lépp looy def ah da nga ñaan yàlla ndam ak réussite kon suñu collaboration muy suba Subatel agence 1xBet ak Pape Diouf damay ñaan yàlla mu nekk réussite boo xam ne adduna bi yëpp dinañ si teg ndax mettiwul jafewul ndax liggéey kese la loolu moo tax yàlla wàcce ñu ci àdduna suñ borom daf ñu fi wàccee pour ñu jaamu ko ne nag liggéey leen kon lu nit bëgg rek ci réussite mën nga ko am liggéey rek la laaj booy ànd ak artiste war a liggéey ak moom am ci moom kóolute image am doy la liggéeyam doy la crédibilité am doy la yow it da ko war a gëm mais gis naa ni gëm ngeen Pape Diouf li ngeen ma gëmee nag nu ko raw laa leen gëmee yàlla nañu yàlla may ndam te di la promettre aussi que ni incha allahu rabbi suñu yéene mooy li ngeen di xaar ci ñun ñu def ko ba def sax lu kawe suñu njort donc yàlla may ñu wër ak kattan ba collaboration bi nga xamante ni am na ci diggante 1xBet ak Pape juuf yàlla may ñu sindam Euh, tànn googu ñu daal di tànn nag ñoom waa bet artiste bi euh, nee ñu Valeria mu incarné moo ko daal di nag euh, waral rawatina carrière bu mu daal di nag def yu bari ci ay raaya daal na koy am xar itam ci àdduna wërngal këpp ak taxaw bu ñuy def ci wàllu social ay firnde la ca directeur commercial ak marketing bu Paris sportif en ligne boobu di 1xBet dellusi na ci lu tax ñu daal di tànn Pape Diouf ma kii di Badara Gadiaga wax ci turam mooy directeur bu Subatel agence si ñu déglu ko ba tey ak su FM. da ngay xam ne ay sénégalais ak ay yeneeni sénégalais ñoo nekk seen ginnaaw. 1xBet yamul ci loolu. li ñuy woowee attractivité territoriale nga xam ni Pape jouf de par sa dana tax nit jël avion ñëw Sénégal. wala Kalidou Fadiga ci man fu balam dana tax nit ñëw seetaan si ko Sénégal loolu mooy attractivité territoriale maanaam ci wàllu sport ak culture ñooñu dañuy xëcc. jëmale cim réew. loolu moo tax réfection wu statu Sénégal yi wan exhibit daf ci jouer rôle bu bari mooy participer ci yenn stades yi joxe ci xaalisam pour ñu defaraat ko. puis bi nga xam ni nag ñu ngi koy def ci culture weesuwul li parce que dafa war a am. Euh, benn genre dynamique. benn brassage benn convention benn euh, yëgoo bu am entre la culture et le sport parce que dañuy dem de pair et nous les Africains nous sommes les as de la culture et du sport donc 1xBet bi mu paree ci sport day appuyer culture ku jël pap Diouf def ko brand ambassador war a liggéey ak moom un peu partout dans le monde yaakaar naa ni loolu mooy jàppale culture jàppale aussi média yi ci Sénégal ndax télé yépp ci Sénégal presque 1xBet yi ci ëpp am na convention ak ñoom di leen jox ay publicité di leen jox ay part de marché loolu mooy li mu def ci Sud Matin fii lay jotaayu xibaar yi di eh, daal di buure rédaction bi dina dellu siwaat xibaar yi ci yaatal midi lay doon ak benn waxtu 9h xibaar yi ci tënk jaajëfal bu baax a baax Adja Ndeye Mariam Ndiaye ci revue de presse bi jaajëfal itam Assane Thioune mi ñu àndal ci sottandikukaay bi mbokk koy xarit yi ñuy déglu gërëm leen sant leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan ñu yenn jàmm.